mooy ñeel yéefar ba ko jasaaka yàlla na la fay allahu yàlla charan ay wallahu te yàlla aalamu moo gën a xam bi maa ci li nga xam ne xamilta jëfoon nga ko kunta nekkoon nga batti andi aji yeex fii taaxatillaahi ci topp yàlla sarixante aji gaaw ilaa maasiyatillaahi jëm ci mooy yàlla te yaqul tey wax laxoo ñeel ko almaytu néew ba ne ko man anta anaku yow maa raaytu mësumaa gis fi duniyaa ci àdduna aswa ku gën ñaaw min ko ci yow fa yaqulu tamit wax ko ne ko ana man xamalu ko maay sa jëf ja alxabiisu yay aji bon tuma yuftaxu topp def na ubbi loxoo ñeel ko baabul bunt mi ne naari ci sawara fa yanzuru te muy xool maqxadaxoo ab jekkikaayam illa naari jëm sawara fa yaqul te muy wax rabbi yow sama boroom laa tuqim bul taxawal asaaxata bis penc xataa ara ba may gis ahli sama ñoñ wa aqribaa yi ak samay jegeñaale wa awlaad yi ak samay doom falaa te du deñ kadalika naka noone ilaa yawmil qiyaamati ba bis dafa jàll wax kay waa a génn àdduna bu di ab yéefar muy mbiram mu wute lool nag ak bu dee ku gëmoon yàlla te nekkoon ca la ko war ne kookee di waaj a génn àdduna bu dee ab yéefar yàlla day yebal ay malaaka yu mbugal ñu ñëw indiwaale yérey yu mbugal yu ñàng-ñàng toog fee nag dànd ko bàyyi nag malaakam dee mi moom ñëw su malaakam dee mi ñëwee nag day toog fa tolloog bopp yéefar boobee daal di waxanteeg yéefar ba ne ko yow ruux gu bon gi génnal dem ci merum yàlla ak mbugalam bu ruugi déggee kàddu gu naqari googu nag day mel ruuga dafa tasaaroo ci yaram mu yéefar ba tas goo xam ne day naqaree nocci ba mu set day mel ne leen bu tooy xipp bu taq ripp ab tër wala nga misaale ko xawam ci xur rek su demee dem ba leen boobee mooy kawar ga sax ca moom taq ripp nga bëgg koo setal nag daanaka su mën a teqale tér ba ak kawar googee noonu la roog yi mel nag ci yaramu yéefar bi bu déggee kàddu gu naqari googu su ko defee nag ñuy xëcc rooga di ko génne di ko génne ba mu génn su ruu gi génnee nag yàlla ci boppam day rëbbu ruu googu lépp lu nekk diggante asamaan ak suuf itam dana rëbb ruu googu te sax rëbb ga day xumb ba nga xamee ne lépp koy dégg ba mu des nit ak jinne nit ak jinne rek nit ak rek ñoo dul dégg rëbb googu nga xam ne moom la yàlla di rëbb yéefar boobu ak rëbb gi lépp lu yàlla sàkk di rëbbu yéefar boobu le malaakay mbugal ya nga xam ne nag ñoo toogoon ne dànd ko di xaar ñu génne gi nag ndegam malaakam dem mi génne na roogi dañuy daal di ñëw rek jël ruuga def ko ci mbalaani mbugal yooye ñu àndaale woon buñ bëggee yéeg nag asamaan buñ yéegee ba àgg ci asamaan si gën a jege àdduna rek moom bëgg ñu ubbil leen kenn du leen ubbil dañu tëj asamaan si suñ tëjee asamaan nag dana am ku woote ci ndigalul yàlla ne leen roogoogu delloo leen ko ci yaram wa ndax malaaka yi ko war a laaj ñëw laaj ko su ko defee ñu wàccaat ak moom delloo si roogo ci yaram wa yaari malaaka yi baaxoo laaj ci bàmmeel nag te mooy munkar ak nakiir daal di ñëw di laaj ci yéefar boobu indaali ay tiit yoo xam ne moom yenn tiit yu ne mel masif koo dégg masif koo gis seeni kàddu ndegam dañuy wax ci kaw gëddaate kàddu ko day naqari ba mel ne ak dënnu seeni bët bindee xool nañuy xoole dagam dañoo mer ndax kooku yéefar la day mel ne ak melxat buy gëf la seeni bët di mel bindee wax itam seen wax yi day mel ne ay ferñeent mooy génn ci seeni gimiñ ndegam dañuy wàqanteeg yéefar bi wàqantew gëdd bindee ñëw itam dañuy xoot ci suuf si ak seeni bëñ buñ dikkee nag daal dij yéefar bi daal koy laaj ne ko waaw ku doon sa boroom mu ne xawma de xawma ko doon saa boroom daañu dégg kuy jéptaane mel ne kàddu ga day bàyyi ko ci wetu bàmmeel ba naa dóor ko marto su ko defee malaaka yi di ko dóor martu boo xam ne martu weñ bu ñuul lay doon martu boo xam ne mbindee fi yàlla yi mel ne nit ak jinne bu ñëwoon bëgg koo toppale fa mu nekk dañ ko mën a toppale martu mel noonu nag la ñuy dóor yéefar bi ba nga xam ne ay faaram day moyaloo gannaaw bi nag jenn waayu ju ñaawa ñaaw naqaree gis lool te naqari xet lool ñëw ci moom ne ko yal na la yàlla fay aw ay te sax yàlla moom dana la fay aw ay ndax xam naa ne umpaliwut sa jëf ne ko ba nga nekkee àdduna luñ message di woote ci lu baax boo wuy jimbaa da nga cay taayee lool buñ dee woote lu bon nag da daa gaaw lool njëkk ca ndegam nag jëmm ji dafa ñaaw lool naqaree gis te naqari xet ba noppi ñu wax ko wax ju mel noonu yéefar bi day wax jëmm jooju ne ko yow yaay kan mësumaa gis day ku la gën a ñaaw mukk mukk mukk mu ne ko man dey maay jëf yu bon yi nga daan jëf maa soppiku jëmm ju ñaaw ji te maa lay wéttali itam ba faw ñu daldi di koy ubbil nag buntub sawara xottil ko ca ab bunt muy jàkkaarloo fa nga xam ne fa la war a jëm bu ëllëgee ca sawara ngelawul sawara ak mbugal ga tàmbali agsi ci moom ca fa mu nekk muy séentam nag fa mu jëm bu ëllëgee ca sawara su ko defee day wax ne saa boroom bis penc daal moom bu mu taxaw mukk mukk mukk bëgguma dem ca feemay seen lu yàgg-yàgg daal bis penc moom bul ko taxawal yéefar bi nag sax ca noonu rekk ba bis penc wa bushral kaib bi nekk na ci bushral kaib laa yuqbadu deful ngëb al mu'minu aji gëm ja xataa mbate mu gisee al bushra mbégte ma fa isaa qubida ngëbeef na ko naadaa mu jébtaane walaysa fil ardi te tit mu nekk ci suuf daabatun daaba saxiratun ju di aji ndawe wala kabiratun du jaageenu ji mage illaa wax ya ndare nga xam ni moom tasmaaw dana dégg sawtaxoo kàddoom nga illa saqalayni ndara yaari nit ci bopp yi ay li mu ci namm al insa nit wal jinn ak jinne muy wax naa taxajjaloo gaawe leen biye ci man ila arhamir rahimina jëm ci gën jaa yërëme wa yërëme fa isa wudixa ndeem tegeef na ko xalaa saririhi ci kaw jaatam nga xaala mu ne maalu màgg-màgg ab ta akum yeexal na leen ay li mu ci namm maalu màgg-màgg ab ta ay yeexal na maatam shoona li ngeen di dox fa isa udxila ndéem dugaleef na ko fii lax di xii ca bàmmeelam ba uqxida kon dijéef ko fara aate mu gis maqxadahu ab jekkikaayam minal jannati ci ajana wa maag la nga xam ne ahadda xaroo na ko maanaam waajal na ko allahu yàlla la ñeel ko waxalaa xabrihi te nekk na ci bàmbeelam ba rawxun yërmaande wa rayhaanun ak wërsëgu barsax wa miskun ak gët te yaqul tamuy wax yaa rabbi sama boroom xaddim nii dal may jiital jëmale ci kër googee te yuxaal te def ko wax ne ko lam yaani jotagut laka ñeel la ndax inna laka naka ñeel na la ixwatan ay bokk yu góor wa axawaatin ak ay bokk yu jigéen lam yal xàqoo ñoo xam ne jot see guñu walakin waaye nam nelawal xariiral xay ni mbirum ngay aji sedd bët boo dee xool ca bushral ka it wax na fa ne ku gëm yàlla buñ dee bëgg jël ak ruuxam faawu ñu bégal ko ci yërmande yàlla ji mu jëm ak ngërëmul yàlla la mu jëm mbégte mu ëpp mi nag ak yàkkamtee àgg ca boromam day tax muy jéebtaane ca kaw kon rooga moo yuuxu ca kaw kàddu goo xam ne lépp koy dégg ba mu des nit ak jinne kàddu gu xumb di wax naa waa ji gaaw leen àggale ma ci saa boroom gaaw leen gaaw leen denc ma jébbal ma saa boroom te loolu mooy bi muy door a faatu rekk fi saasa suñ ko tegee nag ca kaw jaat ga ba tàmbalee dox jëm ca fañ koy jullee ak jëm ca armeel ya mu yàkkamti lool naa yéen daal yéen a yéex rek yéen daal yéene yéex rek ko dugalee nag ci biir bàmmeel ba ba mu jàkkaarloo fa jëm ci àjjana ak la ko fa yàlla defal muy ak nganale mu gis tam ci bàmmeel bi li ko fi yàlla defal ci yërmandeeg wërsëgu barsax xet gu neex loolu lépp réenu waaye da yàkkamti da yàkkamti ne suñ boroom dañ ma daal di yóbbu rek fee nga ma jëme ca àjjana ñu ne ko ah daa am nag say mbokk yu góor ak say mbokk yu jigéen yoo xam ne ak séeguñu da nga leen di xaar mooy am na ñu gëm yàlla ñoo xam ne ñu ngi dund ni faatooguñu te yàlla taxawalagul bis penc ba àtte jaam ñi ba kenn ku ne dem ca këram kon nag nelawal rekk ci xol bu sedd na nga bëggee te xaar nag rekk bés boobee wa fiihi nekk na ca bushral ka yebbu aydan ba tey qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Aïchata ñeel Aïchata radiya yàlla doole gërëm allahu yàlla anha walis Aïcha te isa haayana ndem jàkkaarloo naag almuminu aji gëm ja minal malaykati ca malaaka ya xaaloo ñu wax ko ne ko nar jengu ka dan lay delloo mën na it nuur jengu ka ilaa daari duniyaa jëm ci këru àdduna ga fa yaqul te muy wax ilaa daaril humoomi jëm ca kërug yitte ya wal ahsaani ak njàqare ya déedéet xaddimoo nii leen ma yóbbu ilallahi jëm ci yàlla woo fii nekk na ci mu ne ruye net leef na xan abil xaaliyati jële ci abil xaaliya xaala mu ne lam yakun nekkut ahadun kenn minal muqarrabiina ca ñañ jegeñal seen boroom yu faariqu di teqalikoog adduniya adduna xataa yu utaa mbate def ko dikke bi husnin ci ab car min axzaanil jannati ci cari àjjana fa yashammu hoo dem koy fóon summa yafiidu topp dana faatu bu atafee ci xataa yu utaa nag ngay jàng fa yashamma hoo summa yafiida boo dee xool ca Bushra Kaïb andi dafa addis boo xam dane yonante bi moo waxoon soxna Aïcha ne ko aji gëm ji yàlla su génnee àdduna xëy na malaaka dañ koy seetlu di ko wax naa ko waaw tel laa delloo àdduna su ko defee nag mbégte mu am ak jàmm ja day tax mu ne ah déedéet kërug njàqare yaag soxla yaag coono yu bari ya déedéet man kay nañu àggal ci saa boroom rekk ba tey nee na ku ñu wax abu xaaliya waxal na ne képp koo xam ne xaritu yàlla la ku jege yàlla la faaw rekk balaa génn àdduna daañu ko indil ab car bu bokk ci garab yi àjjana su ko fóonee rekk fi saasa saasa ak ruuxam daldi génn wa fiihi nekk na ca mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awwaluma aji jëkki loo xam ne yu basharu def ne bëggale bi ci moom al mu'minu aji gëm ja fii qabrihi ci bàmmeelam an yuqaala mooy bu def ko wax ne ko abshir bégal bi ridallahi ci ngërëmal yàlla wal jannati ak ajjana xadimta dikk nga xayra maqdamin ngën ji ak dikk xad xafara jégal na allahu yàlla li ma ñeel ki nga xam ne shayyaxaka gunge na la ilaa xabrika ba ci sa bàmmeel wa saddaqa te mu dëggalal mën nga xam ne shahida seere ne aw yiw la ka ñeel la wastajaaba te mu wuyu li ma ñeel ka nga xam ne istaxfara sàkku na njëggal la ka ñeel la minal ci way gëm ñi bu ka ayib andi na fa hadis boo xam ne dane yonante bi moo waxoon ne ku gëm yàlla bu duggee ci bàmmeelam lañ koy njëkk a bégale mooy dañ koy wax ne ko na sa xol sedd yàlla gërëm na la te àjjana la la jëmee ñëw nga ñëw gu rafet rafet ñi nga xam ne itam ñoo la doon sàkkul njëgal ngirmande ñoom ñépp yàlla nangu na seeni ñaan jéggal na la yërëm na la ñi nga xam ne ñoo la gunge sax yàlla jéggal na leen ñi nga xam ne it ñoo la doon seereel aw yiw di wax sa mbaax yàlla dëggal na seen seere ne wax nañu dëgg dëggal ci ngërëmam ak ajjanaam wa fiihi nekk na ca xan ibni masudin ida araada bu bëggee allahu yàlla qabda ruuxil mu'mini nëpp ruuxug aji yàlla aw xaamu wax yu ilaa malakil mawti jëm ci malaakam dema ne ko aqrihu jàngal ko min ñi tukkee ci man assalaama nuyoo jàngalal ma ko nuyoo ba mooy rek nuyul ma ko foo ko déggee rek loolu lañ ci jublu fa isa jaa ndoom dikk na malakul mawti malaakam deema yaqbidu li nga ruuxam nga xaala mu daldi ne rabbuka sa boroom yuqri'uka dana la jàngal assalaama nuyoo ba ba tey boo dee xool ca Bushra Kaib wax na fa ne jële nañ ci Ibnu Mas'ud mu ne maanaam daal bu yàlla naree génne àdduna ab jaamam boo xam ne gëmoon na ko day wax malakul mawti ne ko boo demee nuyul ma ko su malaaka mi dikkee di jël si roo gi nag faw mu jot li ko nuyoo bi yàlla ne ko sa borom day nuyu na la wa fiihi nekk na ca xan abi shaybata fi xawlihi ci waxi borom bi taxaala taxiyatuhum seenub nuyoo yawma yalqawnahu bis ba danañu taseeg moom salaamun mooy baatub salaamun jàmm xaala mu ne yawma yalqawna bis ba danañu taseeg malakal mawti malaakam deemaa xam ne laysa min muminin amul jenn ajigam yàq bidu kook dana ngëb ruuxahu ruuxam nga illaa sallama ndare mu nuyu alayhi ci moom taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaam fa mu ñëw moom ci biir alquran dafa nettali ñi gëm yàlla bu ñu taseeg seen boroom ca ëllëg bu ñu taseeg seen boroom ca àjjana nuyoo ba ñu nuyoonte mooy rek yàlla wax leen ne leen may naa leen jàmm musal leen ci mbugal dugal leen ajjana ku ñu wax nag aboo shaybata ne bokk na ci li dugg ci laaya jooju gëm yàlla ku ne su malaakam dem ñëwee di jël ci ak ruuxam faaw mu nuyu ko door a jël ruuga wa fii nekk na ca xanit bu nil mubaaraki jële ci ibnul mubaarak isan xadat ndeem faatu na nafsul xabdi bakkanub jaam bi almumin bi aji gëm jaahoo dikkal ko malakul mawti malaakam deema faqaal te mu wax ne assalaamu jàmm yàlla xalayka yàlla nekk ci yow yaa waliyallaahi yow xejjub yàlla bi allahu yàlla yuqri uka dana la jàngal assalaama nuyoo ba suma xara a mu jàng haadihil aayata ne allazina gaañ a nga xam ne tatawafaahum dana leen faat almalaykatu malaaka ya tayyibiina mbir mi ñu way teey yaqooloona danañu wax leen ne leen salaamun jàmm yàlla aleykum nekk na ci yéen mu mubaarak dane jaam bi nga xam ne gëm na yàlla dëgg-dëgg te nekkoon ca la ko war bu dee faatu ba malaakam dee ma dikk da koy wax ne ko yow xejjub yàlla bi nuyu naa la sa boroom day mi ngi lay nuyu bi ibnul mubaarak waxee lool nag mu jàng laay bi tàmbalee ci te alladina tatawaffahumul malaikatu tayyibin banam daanoo laaya ba daa nettali woon gaa yu baax ya nga xamee ne suñu dee jël seen ruu malaaka yi dañ leen di bégal naa leen sant leen te bég jàmm rekk ngeen di fekki duñu leen wax lu may wéy leen àjjana rekk ndax la ngeen nekkoon mu di ak gëm ak sax ci def lu baax ibnul mubaarak dafa jàng laaya jooju dëgërale ko waxam jooju xeejub yàlla nag maanaam waliyullaahi mooy képp koo xam ne rek gëm na yàlla te ragal ko xeej yàlla yi dañoo ëppante ay daraja lool rek waaye la laaya ba wax ne ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanoona te caa teg rek alladina amanu wa kaanu yattaqoon xam ne ku boole gëm ak wéye ndigal ak bàyyi tere te yàlla rek tax rek dal ngay nekk waliyu yàlla wa fiihi nekk na ca anil bayxaqi yi jële ca al bayxaqi yi fii qawlihi taala innal lazina naka gaaña nga xam ne xaaloo wax nañu ne rabbunaa sunu boroom allahu moo di yàlla tumma staqaamoo topp ñu sax ca la leen war tatanazzalu dana wàcc alayhim ci ñoom almalaaykatu malaaka ya naa leen an eey laa taxaafoo bu leen ragal wala taxzanoo te bu leen jàq wa abshiroo bég leen bil jannati ca àjjana ja allati ja nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuuxadoona def leen ko dikk xaaloo wax nañu ne zalika loolee xindal mawti fa jamonoy faatu ga lay doon albayhaq yi ba muy wax ci laaya bi suñu borom wax ne gaa yi gëm yàlla wax ne nun de yàllaay sunu boroom ba noppi sax ca la leen war ay malaaka dañuy ñëw ci ñoom naa leen bu leen tiit ci li ngeen dëgmal ci kanam bu leen jàq ci li ngeen bàyyi gannaaw bëgg leen ci àjjana xam ne ca ngeen jëm yéen la ko yàlla dikk bay xaq yi nee na ku gëm yàlla bu tolloo ci di génn àdduna la malaaka yi ñëw wax ko laaya joojoo ndegam ne ko bul tiit ci lee jëm bul jàq ci li nga bàyyi gannaaw àndal ak sant ak xol bu sedd te bég ci àjjana jee nga xam ne ca la ñu la jëme waxan abi xaatimin jële nañ ci abi xaatim xan mujahidin jële ca mujahid fil aayati ci laay boobu xaala mu ne an eey laa taxaafoo bu leen ragal mimmaa ca la nga xam ne taq da moona da ngeen dikk man nay tuq di moona alayhi ci moom minal ci dee wa amril axirati ak mbirum alaxira wala tahzanu te bu leen jàq xalaamaa ca la nga xam ne xallaftum bàyyi ngeen ko gannaaw min amri duniyaakum ci mbirum seen àdduna min waladin ci doom wa ahlin ak ñoñ aw daynin wala bor fa naa naka nun nastaxlifukum noo leen di wóotu fii ci moom jële nañ ci abu xaatim mu jële ca mujjaahid ba muy bi nga weesu ci inna lasina qaamu rabbuna allahu summa staqaamu mu ñi gëm yàlla te sax ci la leen war suñu tolloo ci faatu ay malaaka dañu ñëw naa leen bu leen am lu ngeen di tiit ci lii ngeen jëm muy faatu gi ak lu aju ci mbiri alaxira bu leen amit lu ngeen di jàq ci li ngeen bàyyi gannaaw ci seen mbiri àdduna ni ki seen doom mbaa seeni soxna mbaa bor yu ngeen amee woon koy nuru ndax nun moo leen te wóotu ci ndigalul yàlla taxawal leen ca ba lépp tegu ci aw yoon wa fiihi nekk na ca xan abi xaatimin jële ci abi xaatim xaala mu ne yutaa def na dikkal al muminu aji gëm ja indal mawti fa deega fa yuqaalu te def ko wax ne ko laa taxaf du ragal min maa ci la nga xam ne ante yow qaadimun aji dikk nga xalihi ci moom wala taxsan te jàq xala dunya ci àdduna wala xala ahliha du caag yoonu ci ñooñ àdduna wa abshir bégal bil jannati ci ajana fa yamootu te muy faatu waqad aqarra te fekk na mu seral allahu yàlla xay na xoo bëtam seral bët nag mooy seral xool rekk abu xaatim nee ku gëm yàlla bu tolloo ci faatu dañ koy wax ne ko li nga dëgmal bul ca tiit bul ci am loo cay xalaat li nga bàyyi gannaaw muy àdduna ak waa àdduna itam bul am la ci metti nga di ca jàq mbaa nga di ca jaaxle lépp yàlla la ci taxaw te it dëgal ne àjjana rek nga jëm su ko defee nag bu dee faatu xolam day sedd lool di yóbbaale lu ngay rek xol bu sedd wa fii nekk na ca xan abi xaatimin annahu naka moom su ila laajee foon alxasanu xasan an xawli yi walis wax yàlla bi taxalaa kawe na ne yaa ayyatuha nafsu yow bakkan bi al motma innatu bi aji dal al aayata toppal laaya ja ba mot al aayata mott lil laaya ja fa qaala mu ne inna allah naka yàlla taxalaa kawe na ida araada bu nammee qabda ruuxi xabdihi ñëpp ruuxug jaamam ba almumin bay aji gëm it ba ànnat dal an nafsu ba ilallahi jëm ci yàlla watt ma ànna dal allahu yàlla ilayha jëm ca moom abu xaatim ne dañoo mas laaj xasan xëy na muy alxasanul basri ku siiw la taxul nag mu ràññeel man xasan la dañ koo laaj li suñ boroom ne yaa ayatuha nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati dañ ko ko mas mu ne jaam bi gëm yàlla te sax ci la ko war ba yàlla gërëm ko